mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di a jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala wala 70 736 36 36. gannaaw moo sante ma noppi rek Cheikh Cheikh Amadou Basir sa sa waajur wa Cheikh Amadou Fall daa waxoon ne yaa ansidan faadilan rabbul ibaari yaxus man saa abil fadli bi xayri sa bos xas sa faadiluna rabbul bihi law tirta min asadin nax wa sama mos sunu kilifa Cheikh Abdoul Fattah noo ngi nuyu ci turu Serigne Bachirou ak turu bokk yëpp yi ne ci jataay bi ak yi fi nekkul xam naa sëñ Cheikh sax boo xasee wax ci turu sëñ Bas ñun ñëpp mën nañ cee dugg waaye ndigal rek tax ma di sànni kàddu waaye li wax mat na rafet na jekk na lii nag sëriñ bi eh, ko xam diggante bi xam démb lii du la bet du la jaaxal waaye nag dafay lu rafet ci bokk te neex lool te ñëpp di ko bëgge ndax diggante Cheikh Mouhamadul Fadil ak Cheikh Abdoul Khadir umpul kenn waaye gannaaw bokk gi ci yàlla dogalit doyloo gam ko doyloo woon ba sësali ko ci boppam dénk ko li ko gën a ñor muy diine ji defoon ko naa naayibam ci jàkk ji moom itam wegg gum ko wegg ak jàppi gum ko jàppi sañ Tuubaa tax na mës nangoo sëñ Fallu am ngant ba nangoo jiite ndax rek maal ko diirub sëñ Falloo ngi fi sëñ Buso la daan demal jiite waaye mës sa jiite ajjuma te loolu warmaal gu mu warmaal warmaal sëñ Fallou ko waral ak teg ko tegu euh, waay bu kawee kawe kawe boo xam ne waru ko wuutu ci jàkka ji loolaa loolaa waral mu doxee noonee kon nag bëggante googee ak cofeel googe ak wegg ko wegoon jàpp naa ne ko xam jataay bii du jaaxal ndax sëñ Bichir mii euh, bu liy amee tey jii sëñ Fallou tax te loolu ñu xam-xam nañ ko kon nag cërub sëñ Fallou ci kër gi kër sëñ Abdou Khadir sa kër ni kër yi mu doomi sëñ Tuubaa yëpp nekk sa kër waaye kër sëñ Abdou Khadir da cee raw waaye na kër sëñ Abdou Khadir ñëpp nga ko seqal ñëpp nga amal masla ñëpp nga def rak fonk leen jàpp leen kër sëñ Abdou waaye jàpp naa nag moom mii da si am xaasi boppam joo xam ne man mii jaxasoog moom di jaxasoog yow te xëy na samay tànk bëri yu fa waaye xam nga sama xol ci yow man mën na maa seere sa digg ak moom ndax dañuy weddi waxtaan ma xam ni mu la safoo ak ni la bëgg am ni ñàkk ci yow sago comme bu liy amee ñun ñëpp di ay xaritam di ay bokkam dañ ciy bëgg tey ñaan mu yàgg te sax nu di ko te di ko seere ba kanam sëñ Tuubaa jërëjëf Mbacke waaye damay seere rek sëñ bi ci sama digg sëñ bi sama mi ndax day diggante bu yàgg boo xam ne xam naa xam nga ko sax waaye yàlla def na boo dalaguma sa alxuraan ñëwaguma kër sëñ bi bis bi bi ma njëkk liggéey kër sëñ bi xarit rek du ma ko fàtte ci weer koor booba dalaguma sax dem kër sëñ bi mu yëkkati xaalis yoo xam ci laa ko njëkk xam ne ndax gone ko ku may xaalis da lay teel ràññee yàlla def na it 1982 bi ñu yóbbu kër si maag sëñ bi sama sama mag bañ fa accès rek la tàmbalee añ bi ñu koy jox boo taxawal gul kër waaye mu di ñu ko yónnee ba yàlla def mu sanc këram àllarba alxames ajjuma ju jot boo jamono ji demewut nii boo accès day rey xar jiital ñu ci kon diggante bi daa yàgg. maa ngi fàttaliku ne nees na ne ba mm. mm. la dafa àllu keroog comme ndeysaan euh, doom ji wax sëñ Abdou Khadre bis ba mu juddoo ci la ko jël jëbbal ma ko ba mu matee daal ko jox ma fii la yoroo ba jàngi bu bind kayil ba ba jàng xam-xam door delluwaat ci moom kon te loolaa ci gën tuuti nag kon faaw loolu faaw ma seere ko nga xam ne Eh, dama ko daa wax ca bu njëkk ne ko loo mos a gis ci lu baax rek mën nga si jëmm kon nag boo dee suñ kilifa toog fi faaw loolu tam ma seeral la di ñaan bu baax rek suñ Tuubaa mi nga xam ne amin amin ci barke suñ Tuubaa bismillahi finin ak daara yàllaaw safi baqa abin di fiika yàllaaw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 أنزالي مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنزالي مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله